ورضي الله عن برزغ البرازغ تاج العارفين مميد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد التيجان الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا جدنا مولانا الحاج مالس بن عثمان تاب عليهم الرحمن وجميع خلفائه رضي الله عنهم وارضاهم وعنا به آمين mbokk yi ñu seetaan ci seen télévision Cébulu TV ñu leen di nuyu ku nekk ci turam santam di leen nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sangu yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi kilifa gi yàlla jiital ci kër gi waaye di njiit di nuyu it kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak sunu kilifa famille yi ak sunu kilifa kër yi fa tabaarakallahu di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura ak wér te di ko sàkk ci ñoom ndax olof dafay wax ni boo duggee ci gaal yor sa walis bul ñaan yàlla na walis ba mucc da naan ñaan yàlla na gaal ga mucc ndax bu gaal ga muccee walis ga mën naa muccaale kon fa tabaarakallahu ñu ngi nuyu sunu kilifa yëpp di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkk ci ñoom ndax seen jàmm mooy sunu jàmm fa tabaarakallahu di nuyu ñu tëdd ci lalu hôpital yi di ñaan yàlla yàlla yàlla fëgg seen bopp ci barke weeru màgg wi di weeru gàmm ñi caabi féete ginnaaw dañu nekk ca prison ñi def erreur ba dugg fa ak ñu tuumal ba dugaleen fa ñëpp yàlla leen yàlla génne ba ñu delluwaat ci seen njaboot bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu ngeen fas yéene ànd ak seen mbokk seen xarit oustaz Mansour Gueye jantal oustaz ci émission bi ñu leen defal tey ñi préparation gàmmu gàmmu nag buñ ko tuddee bu weer bi jëp see ñëpp seen xel dem ci muy loo xamante ni euh, Sénégal fonk nañ ko trop waaye àdduna it fonk nañ ko te képp ku julli war nga koo fonk ndax boo xoolee kenn ku nekk ci ñun am nga sa bis boo xamante ni bu yegsee di nga ko préparé di nga ko waajal di nga ko feete mi leen sa jour anniversaire te sa anniversaire boobu ngay feetal bu jubsee léegi gis ngeen sax li xew dañuy def suñuy esthétique di def anniversaire à waajation muy anniversaire bi ñu ngi koy waajal mooy comme ni ko Seydi El Hadji Malick defee bu gàmmu jubsee su weer yu feeñee mu commencé burdu burdu fukki fan bennal ba mu noppalu fukki fan ak ñaabari jour gàmmu mu gàmmu moo tax sëriñ Mansuur si borom daaj dafay wax ni ki tax nga xew ba ni xewu bay xew sa xew walaay bu xewam ñewé nak nga man ni xewu bàyyi lépp dem na ca xewu ca xewam mu ni koo kan mu ni koo sallallahu alayhi wa sallam ndax bisam bi buñ ko xeeb ndax bis la bo xamanteni lépp luñ ci def suñu bop lañ ko defal ndax mom subhanahu wa taala da ko beral loxo may ko lu mayul kenn mom sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla dafa bind 124 millionnante 124 millionnante yi ñu def examen 313 yonente génn 313 yonente yi moom sallallahu alayhi wa sallam mu dagg ko 314 yep, jaar oral yàlla daqat defaat course ba ñu defaat examen vingt cinq yonente génn mooy ñu tudd ci alquran moom sallallahu alayhi wa sallam mu daggaat ko d'office vingt quatre yëpp jaarat oral yàlla daqaat ko suba defaat examen cinq génn ñu tudd leen ulal azmi moom sallallahu alayhi wa mu daggaat ko p d'office ñi quatre yëpp jaar oral moo tax yàlla ni kon dinaa la jox kado ñu ko kado bi lan la mu ni inna wa malaikatahu yusalluuna ala nabi waaye yamu ca mënoon na yem foofu rek loolu doy na kado yàlla ak i malaakaam ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag julli nga amul sëlmal waaye mu joxoñu ni yaa ayyuhal lazina amanu hey yéen ñi nga xamante ni yéen a wax yéen a gëm yàlla yéen ñi nga wax ni yéen a bokk ci daaratul iman yéen ñi nga wax ni yéen ay soppe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sollu alayhi wa sallimu taslima kon julli leen ci moom te ngeen di sëlmal waaye ba ñoo teg benn coono gi moo tax bu ko neex mun julli yam foofu rek kon saa su ne julli ci yonte bi mais da ngay julli sëlmal boo amee jot jàpp jëm julliwaat ci yonte bi te booy way yonte bi yaa ngi julli ci yonte bi xanaa xamoon ni ki tagg yonte bi yoo ngay fi tasu sax yaa ngi julli ci yonte lépp loo xamante ni ñu ngi koy wax ci yonte bi sax xol di ci sedd yaa ngi julli ci yonte bi nga jël sa dërëm di ci def yaa ngi julli ci sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon julli ci yéen dafa yaatu mu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ko nag kado bii laa la jox ba adduna tukki man ak sama malaaka du ñu sëlma dañuy te xam nga yàlla mii nangu ñaan bu demee bay ñaan loolu werantewul ni ñaan nga dina nangu fa tabarakallahu mu joxoon ñu tamit ni nañ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yàlla yamu ci yonent bi sallallahu alayhi ni képp ku julli ci man benn yàlla julli ci yow fukk ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci man téeméer yàlla julli ci yow junni ku julli ci mën junni sa mbagg ak sama mbagg ñooy àndandoo bu biir aljana moom sallallahu alayhi wa sallam kon léegi kado bi dafa dem ba ñun ñi nga xam dañuy julli ci yonent bi sax ñu amaala ci mu ngi mel ni yow mi dem ci anniversaire ki ngay feete moo jënd kadoom jënd gatoom defar wala ñu jëndal ko sax mais bu ko daggee dina leen ci ñamal ñam yoy ñi ci ñam nak moy julli gi ñu julli yiw yiñ ci amaat ñun ñi nga xamanteni ñoy xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni koku nak mo waral ciowli koku lañu wara gamul te li comme ni seigne Mansour waxe ki nga xamante ni min nuurihil xuliqal akwaanu yallaahu ki nga xamanteni borom subhanahu wa taala ci leeram la sakke lépp lu mu sàkk ci leeram la defare lépp kon kooku bisam ñee wax dëgg yàlla nag ndax moo tax nga am nga war cee mën a góorgóorlu baax fa tabarakallahu mu xaaj xaaji Mansuur ni walawlaahu lam tadril xaliqata qadruhu bihi fataxa allahu kunuuz al bawaadiya mu ni ñun ku nekk ci ñun sak am ak sak amal lépp yàlla nga ko defee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye lépp lu ñu fi gis mu am tam amal muy caméra yi ngeen jàkkaarool tax ngeen di gis émission bi ngeen di seetaan ak micro bi ko jàllee ak yi seen xarañteeg lépp mu ngi amee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom jar naa waajal bisam moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag gàmm def ci bëri ay werante ñii que ñu bëri dañoo jàpp ni gàmmu sax farata la Sénégal ndax niñ koy ñëw te ja gàmmu du farata du sunna ñu ni kon lan la ñu ni bidaa bu rafet la ndax bidaa bu rafet na dem sax ba am taxawaayu sunna moo tax Seydal Xaaji Maalik biñ ñu ko laajee daf ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu mu ni hey yow mi nga xamante ni kat da màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ameen ko ci amin bu yiw amin bu yàlla gërëm amin bu dagan boobu day kenn bañu ko ñu ko comme nan comme ni waa Tiwaawan di gàmmu ndax nag dikki booy wax da ngay wax li nga xam da ngay wax li nga maîtriser wax li nga ñun lu ñu gën a xam mooy Tiwaawan la ñuy gàmmoo ndax fa la ñu mën a joxe exemple waaye ci biir Tiwaawan bi ñuy gàmmoo ña ngi gàmmoo kër Serigne Issa Touré ñu koy nuyu bu baax a baax di sunu Serigne di muqaddamu Seydi Hadji Dabakh bu fa tabaarakallaahu ci noonu la ñuy jaara sax du nuyu sunu oustaz sunu oustaz bopp oustaz Babacar Diarra di sunu sunu soppe di sunu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu mu nuyu waaleel ñu waa soppe borom daara yëpp waaye di nuyu fondation Kër Rasoul yëpp ñu ngi leen di nuyu baax baax bu ñu nee fondation Kër Rasoul tudd Cheikh Maam Abdoulaye ak ñi mu àndal rek bàyyiwuñ kenn ñoom Kumba Rasoul ja fa tabaarakallaahu kon niñ ko miinee gisee ko Tiwaan di ko gàmmu mooy bu ñu xëyee fajar comme niñ dan def ci suñu kër yi biñ nekkee fi avant ñu dem fee Tiwaawan di gamuji ji danañ jóg fajar di julli kon boo fa demee ngalla bul faat waxtu ëpp na nag nga dem ba sa kër sëriñ bi nga xamante ne nee nga mooy sëriñ moo la doy nga defa faat waxtu te nee nga bi nga nekkee fii nga xamante ni sa bërëb bi nga dëkk jóge fi daaw faat waxtu même daan faat waxtu wala nga ko sa sëriñ sax dontoon sax du yoon da nga waroo di faat waxtu waaye dem ba sa kër sëriñ dafa faat wax dem ba da gàmmu gàmm ji yonti bel tax a jóg sa sëriñ moo woote gàmm ngay da ngay dem ba pare julli benn julli julli woo ko fa nga faat waxtu yëpp yaa ngi ca solu ba yaa ngi ca sañsa ba yaa ngi ca togg ma yaa ngi ca lente lépp looy mën a def nag boo julli jot da koy bàyyi dem julli ji fekkee gàmmoo la tax a jóg bu ñu jullee fajar pare lal mbalaanu wasifa dañ ko daan defee suñu dëkkuwaay ya ñu demee fa ñuy gàmmoo it noonu lañ ko war defee tax noonu la ko waa Tiwaawan di defee fa tabarakallahu bu ba pare ñu defa ay dog ñaanal réew mi ñaanal jullit ñi ñaanal réew jullit yi yàlla sotti fi jàmm ak xéewal a suutura fa tabarakallahu bu demee ba bëccëg ñu def affaire yi kenn ki jaween mooy joxe ay ñam ndax kat ku woote nit ñi wuy si la te ku am gan war ko teral ndax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba mi ëllëg yowmal qiyaam soo amee gan na ko teral kon yow mi nga xamante ni yaa fa dëkk say gan ñëw nga teral leen baax na yonent bi santaane sunna la fa tabaarakallah yow mi nga xam ne da ngaa jóge fa nga dëkk yaag sa waa daayira wala yaag sa waa kër dem fa nga war a gàmmoo ñala dalal si say gan lañ kon teral leen te joxeñam dafa bokk ci li nga xamante ne dara gënu ko wala bokk na ci gën ci diine ndax dafa am benn buur buur bi dafa nekk ak benn waay yoo xam ne chaque jour waa ji day ñëw di ko waar pour mu dugg ci diine ji donc suñu yonente bi nii la mel diina ji nii diina ak diina ak dimbalante la te yonente bi yàlla da ko yónne rahmatan lil alamin da ko yónne ngir muy yërmande jaam yëpp tabaarakallaahu buur bi nangu ko déglu bis yàlla dogal waa ji tëdd gént gis yonente bi sallallahu alayhi wa mu koy yóbbante nuyoo ci buur bi ah waa ji yeewu jaaxle buur bi gëmul yàlla gëmul sallallahu alayhi wa ba pare yoonte bi di yobante ak nuyo ci mom kon lan la wara def lutax yoonte bi di yobante ak nuyo ah waa ji ci bor bi ñuko man day dama jaaxle mu ko la jaxam mu ngi sama yoonte bi muy sunu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dama ko gënt gis ko mu may yobante ak nuyo ci yow te yow gëmoko kon lan nga fi wara ma def lutax mu yobante ak nuyo ci yow mun ko wax da nga may bab rek da nga bëgg ma dugg seen diina ji ko dedet kok du mako sosal ndax ñëmewu mako su ko waxuloon du ma ko wax te seytaane munta réyum pexe ba soppeeku jël leerug sallallahu alayhi wa sallam mun ko wax ma rek lan nga fi def lu baax ma xam man tam ma ci jàpp di ko def su ko defee ma mën a bokk ci ñi nga xamante ne kat yonent bi dina dina kontaan ci ñoom yàlla kontaan ci ñoom ndax yonent bi kontaan ne yàlla kontaan waaye ñu xool buur bi xool xool ba si yàgg ni ko ah man dey li ma fi xalaat def naa ko ci lu baax mooy dama am fi ñaari doom yu jigéen yu rafet lool ma seet ka ca gën rafet ma takkal ko sama bopp ki ci des ma may ko sama jarbaat waa ji ne ko yaa gën a tey ni loolu nekkul lu baax ndax sa doom kenn du ko takk di ko def sa soxna kon boo jëlee sa doom ba ko def sa soxna kon lol nekkul lu baax wax ma leen nee la diina ji diina yërmande la dina sutural dina jàppalante la te fekkee dafa am koo fi dimbali walla koo xettali wala koo defal lu baax wax ma ma xam lan la buur bi toog xalaat xalaat xalaat ba ci yàgg mu ne a ah, man de li may xalaat mooy te xam naa sa warul nekk loolu démb ci guddi dog naa di doxantu du xool di rondu palais bi ba xam kenn ñëwul pour di ma jéem a coup ma gis kenn ku yoru tors ñëw ba jub palais bi wàññeeku ma topp ko bi ma ko toppee ba egg fekk këram maa ngi fekk muy nekk ku jigéen mu ngi toog man ni ko yow gis naa la sànq nga ñëw ba ci boor pale bi loo fa doon ut mu ne ah sama njaboot gi kat ñoo xiif amuñu lu ñu lekk ma doon dox lu ñu lekk kese moo tax ma ñëw ba foofu mais ñëw ma ñëpp mu ni ko cin bi nga teg pour lan la mu ubbi ko ni ko ay xeer laa ci def teg ko pour ne ba ñu xaar ba ñu ngi nii dina amuñu lu ñu lekk buñu ko kontrol la nañ dem kër ga dafa nañ dal gañu amon rer bi deson na nañ dem nga xol desi dafa nek nga jël ko jox ko yi ta yalla tax waji ndaw si and ak buur bi dem buur bi jox ko desi jok nekkoon yeb mu ñew ye xalé jox leen ñut rer ci ñu xey ndek ci waji ne ko kon lu bax li nga def motax tax alquran daf wa man yutimu taama ala hubbihi, miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum li wajhillahi laa nuridu minkum jazaan wala shukura mu ni képp koo xamante ni daal def nga to yàlla tax jël ñam fekk ku ko soxla te yow nga soxla woon ko wala sax yow nga soxla woon ko sax mooy li ndax booy joxe dangay joxe li nga gën a bëgg waaye comme que yow jox nga ko te xettali nga te ku xettali benn nit xettali nga askan mu ni dimbal bii nga def ci te yàlla tax te diina ji diina dimbal li moo tax borom bi subhaanahu wa dogal ma gént gis sallallahu alayhi wa sallam mu yóbbante ma ci yow ak nuyoo bu ne ba ci ak ashhadu an laa ba pare da nga fasal sa doom ñu ne ñuy joxee si jawe ni loolu mooy seen yitte ñoom loolu di yóbbu di nelaw moo tax Tuuba di wax koo xamante ne dépensé nga dërëm ci juddik guddik sangu sangu yi wala ñi waajal gàmm nga gis leen nga yëkkati dërëm joxe moo xam daayira ba nga bokk la nga joxe sa participation moo xam kër ga nga dëkk la nga joxe sa participation wala nga gis ñii dañuy gàmm ji nga yëkkati dara joxe mu ni bul xeeb doon dërëm la ci sa alal doon dërëm la dërëm nga dërëm ni mu doyee nga xam da nga koo xeeb nga xam ne instant jaratul dara mu ni jaaba bi ngay am dafa mel ni ku fekke woon xaraya mel ni xara sabat xara xonayni xara xare nasar mu ne xare yi nga xamante ni gars yi dañu daan dóorante jaasi ngir xeexal islam moo tax yow miy wax ni su ma woon jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñuy daas jaasi dem xeexali lislaam su jaree ma ñàkk suma bakkan sax ma ñàkk ko ci léegi nag am nga buntu boo xamante ni Sëñ Tuubaa nee na même fekke woo ko waaye mën nga am tiyaaba ju toll noonu fekkee tiyaaba nga doon sàkku ndax xare ku ci dee dem ci xare yi ray ci yéefar yàlla bindal ci tiyaaba ko dugajal tiyaba tiyaaba ngay am yow mi dem xare kenn xamul lu mu tollu seigne touba ne xare yi yëpp nak yaba yi fa sahaba tanam mu yow ñi jël deureum dépassé ko ci bisug yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam mun yàgg ñom yena tollu tiyaba tiyaaba mun fa man yuazimu mawlida nabiyuna babil huda mu ne falaa yuhasabu ghadan inda xisaabil mufahami الله أكبر Sëñ Tuubaa képp ku màggal juddik guddik sayid sallallahu alayhi wa guddi gàmm nga màggal ko waaye nag comme ni ko Maodo waxee léegi ci màggalin bu dagat ci façon màggalin bi ci lañ nekk mu ni képp ku màggal guddi ga rasulillahi sallallahu alayhi wa ci façon màggal bi mu ni ëllëg yowmal qiyaam bu yàlla réglé jaam yi yow doo ci bokk kenn du la réglé waay waay mbokk yi kon lii jar na fu waay mën na nekk nga fas yéene fexe màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gàmmu ñu du ma gàmmu damay tëdd nelaw Kaolack gàmmu du ma gàmmu uma paas du ma dem tëdd nelaw Touba laa war a gàmmu uma paas du ma gàmmu damay tëdd nelaw Caana ba laay gàmmu uma paas bàyyi ma tëdd nelaw soo mënee dem demal soo mënul dem nga gàmmoo fii nga nekk waaye nag bu ko gàmmoo gàmmu gu xaraam isa lam naxwal xaraami odolu lépp na nekk léegi nag bu ñu demee ba tàkkusaan ñu préparé reer yi def sekkee neeg jawee ni ñu lekk ba suur li ko lépp ku ci ñaq ñi dugg ci wàññ bu ñu découragé mukk dana de gis sañ saturé muy wax ne yéen ñi nekk ci wàññi ci suuru gàmm yiw ba ngeen daan am seen kër ya di togg bu ko raw ngeen di am waaye nag boo leen dee xamb bi mat ngeen yor xambee leen ko allahumma salaatu ala nabi boo leen dee ñulug ñulugee leen ko salaatu ala nabi boo leen dee jeq jeqe ne salaatu ala nabi boo leen deen def xorom defee leen ko salaatu ala nabi boo leen dee yekk yekkee leen ko salaatu ala nabi boo leen di séddale si dégg salaatu ala nabi boo leen di raxasaat ndax bi sax defee lépp salaatu ala nabi lépp yàlla sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo ko la waaye nag dañuy bañ nga jël ñàkk ci waañ ba werante bi fii xuloo bi fii wala sax ñàkk ci waañ ba ba ci ku nekk di di wax lu sa yoon nekkul ba jëw fekk la ca ba julli jot doo tara julli déedéet loo nekk nekk ci waañ ba julli jotee xam ngeen ne cin bi boo leen ko bàyyee dafay yàqu waxtu tisbaar la yaatu na awante leen ko na ñii dem julli ji ñii xaar ñii bu ñëwee ñii dem julli ji bu leen toog rek topp ko topp ko ba guddi nga sonn ni mënuma fay waxtu yi tëdd nelaw dabax sëñ Abdul Aziz Al Amin daan wax ni yàlla ñaar yokk leen tànn ci barkeem fi nga war a defaroo boo fa yàqoo fan ngay defaroo te ëpp na nit nga dem sa sëriñ li ma ko waxee sànq dafa mooy yàlla wala dafa faat wax wala dafa tooñ borom bi subhaanahu wa taala bu liggéey bu di sëriñ mooy seede te sëriñ bi nga yaakaar yaa defoon ni ndax ci dëkkam nga ko defee woon ah xam ku lay ku lay ku lay ci sallallahu alayhi fa tabaarakallahu bu ko defee nag bu guddi jotee bu gaa yi defee affaire ba pare léegi nag ñu def la Maodo waxoon ca xilaatu dahab وعنعتلوا بخيروا خير البخور وأفرسوا السجادات تكريما على القدم موضة نينا بسل الله عليه وسلم بكو يام أمبي أكبيم جانسي عدنا يب دفع مهاتف بوخ نهاي parfum wu len ginaaw bi ngeen sanccé ba paré sét len parfum yi gëna neex ci parfum yi ngeen parfum woko place bi ngeen di fas yéenee gàmmu def leen fa cuuraay yi gën a neex ci cuuraay yi mu fay xeeñ waaye ngeen lal bassan yi nag lalin bu rafet bu set bi da ay chaise la ngeen ranger les chaises yi ranger yi bu rafet fomb ko ba mu set su ko defee nag ñi nga xamante ni ñooy tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé zikkar di way yonent bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam te ñooy borom xam-xam yi mooy asaatis yi ñëw fas yéene waxtaan yonent bi fajar léegi dangay gàmmu nag da ngay gàmm te léegi yaa ngi gàmm nga ñëw ba gàmm nga reer reer ba sa biir bi ko ñu sallallahu alayhi wasallam biir dañ koy xaaj ñetti xaaj lii nga def ci lekk fii nga def ci naan fii nga bàyyi ko pour waaye boo toppee sa loxo ndeyjoor na def ni sekkeen yi def jël fi nga war a lekk ba fi nga war a naan yëpp nga def fi lekk léegi mu desaan fa nga war a nooyee ne nga def fa ndox léegi loolu yaa rek sa yére sa boo ko deful ndànk doo ko sol wala boo ko seetee nga def ndax taxaat yi fa njëkk waxtaan nabahu anna nuural xatmi laylakumu yeewu leen ndax kat kii let kii mottali leeru ajig mottali gi muy sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci seen biir comme que mu ngi suñu biir nag moom sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy gàmmul waay waay bu ñu nelaw kon nañ lekk lu na ñam rek daf ñuy génnee def ñam rek su ko defee ñu mën a dem gàmm mais soo toppee sa ndeyjoor nag tëdd nelaw nga fay nekkee rek léegi bu ñu demee ca gàmm nga ka la borom borom bis rek mi kan mi sallallahu Alaihi Wasallam. ndax moom la du keneen kenn ko fa waxtaanee rek da ngaa war a turam jaate diw wax ci sallallahu Alaihi Wasallam. ndax bis bi bisam la du bisu kenn kon nag bu nga nga dem pass jënd yére cotiser perte sa temps yëpp dem dëkk jóge sa dëkk dem ba beneen dëkk ngi da fay gàmmu waaye fexe fa xamee nag kan mooy fexe fa yokkatoo nag ci yiw fexe fa yokkatoo nag ci boo ñëwee sa jikko mën a changé ndax kat moom sallallahu alayhi lu ci jikko yàlla loo ci moom mooy jikko walakum fi rasulillahi uswatun xasana ba pare yàlla mu ko tàgg wa ma yàlla mu ko wax yàlla da ko tàgg ci jikko la ko tàgg wa innaka la ala xuluqin azim ko ci wayjur bu góor tagg ko ci wayjur bu jigéen dontoon nag añu sell lañ mais jikko boobu nag dañuy waxtaane ca gàmm nga mën ci jël doomu tey jël lépp nga enregistré benn jikko ni kat dinaa jël jikko bi ci sallallahu alayhi wa sallam ba gàmmu déwén ma koy pratique bu déwénee moom yàlla bàyyi ma fekkee ak jàmm ma jëlaat beneen jikko nii lañuy def boo gàmmoo boo ñëwee ba la loo jëlee ci gàmm nga yii gàmm neex na benn dal ba da ngay lekk da naan dal ba bi ah waaye nag bu loo fa jëlee jëlee naa fa lii ka daan waxtaan lii la da daan jéggale da daan jëllale da baale da maye da daan nga ni yii jikko la naa si jël benn moom kon jikko bii laa jël moom jikko ba sallallahu alayhi wa sallam léegi ci jikko yooyu nag ngay jël benn wala ñaar ba ñett boo ci mën a jël rek pour nga lii day ustaas bi waxtaane ko wala sëriñ bi waxtaane ko wala borom xam ne waxtaane ko ci la la ko waxtaane ci jikko sallallahu alayhi wa naa ko jël ba gàmmu déwén su ko defee incha allahu bu déwénee mu meuna a amal ren bu di nga am ay jikko jikko ci yéen bi ndax kat mom la modene min kulli wasfin hamidin hada afala tafdil diraja rajaul baraya yawm muzdahim jikko yu mag yeb jikko yi tedd yeb jikko bo ci wax ni bi rafet na la ca gën a gën moom la sallallahu alaihi wasallam jël kon nak boko deray bo mu tam am la ca gën gën da nga am la bax moo tax biñu ne Bamba Sëñ Tuubaa ni kooku maa nga xam ki ngeen di waxal moo lañu ñu war a gàmmool man mi bàyyi lépp topp ko man mi bàyyi lépp fas yéene koo liggéeyal sama giiru dund man mi bàyyi lépp ngir rek sama cofeel ci moom moom sallallahu alayhi wa sallam ñu ko mooy kan mun huwa akmalul wara xalqan wa zahara wa mislu xattu lam yura fa lam yura fi chiyami Sëñ Tuubaa nee na nga xamanteni moy sama kilifa moy surgam ndax moko waxon moko xol ci ak mu ko antal karim an al anal xadimu al hadim fi kasnaay mun ko yow yaay ko tedd ki sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man may sa surga bi lay diru diiru jamono may sa rek ci dara da te di la topp di xam say melokan say jikko rek di ko roy kon koku bu lu mu wax ci yonent bi ñu war ko mën mën a jàpp nee na sallallahu alayhi wa sallam moo gën mat ñëpp ci teddange ci ci ci bind lu waay rafet rafet bind lu waay jekk-jekk bind lu waay taaru taaru bind sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëppale jikko moo gën a rafet la ñëpp gën mat la ñëpp moo ko gën a baax la ñëpp li mu daal mooy ku mel ni ki moom moom sallallahu alayhi wa au plus grand jamais ci ci yàlla yi kon yàlla dudul mel ni moom kon benn bu amul deux la tax ku ñu tëkkale rek ni danga ngaa rafet comme rasulillahi rek ñu ngi lay jay wala ñu tey moom ci daraja wala ci martaba léeg-léeg nga dégg sama genre yi bëgg bës bëgg ñu wala bëgg ñu sax di ko dendaleek rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ ba ñuy dendalee rasulilah sallallahu alayhi wasallam boo demee ci biir bindam dina wàcce boppam lool yëkkati rasulilah lool ba ca kaw ndax xam ne lu mu am rek mu ko amee ci liggéey sallallahu alayhi wasallam man xaay abdu waxoon ne bihi naa naa la rijaalu maratiban min al malaki ala min jalal xasri tabarakallahu cheikh chaadu abi ah man de sama maam la comme Cheikh Ahmad Bamba yow mi nga xamante ni yaay surgaam yaa mën a wax loolu man sama maam ñi sama maam topp naa ko da xam naa ma xam ci moom ñu ngi ko loo wax mu ne huwa allazi utiya ma yashaau wa misluhu lam talidi nisaay mu ne daal ku mel ni sallallahu mel ni sama maam ja Cheikh Chawla bi ne yàlla da kaa jox dafa mel ni daal danaan yàlla jox ma lii laa bëgg nii laa ko bëggee fii laa ko bëggee nii laa ko bëggee yàlla di ko jox di ko jox di ko jox ba mu ne doy na wala yàlla ni ko lii baax na yam fa muy noonu daal la yàlla joxe ñu ko bëggee rek jigéen yàlla du dogal mukk jigéen di di ko juróote ci kaw suuf moo tax Seydal Xaaji Maalik ki nga xamante ne moo wote gàmm borom Tiwaawan moom nga xam ne bi ko nit ñi utsee ko Maodo loo ñu garanti ëllëg daf ni walaysa li amalun alqaaka yaa amali siwal mahabbati wa taazim wa salami mu ni jaakaaruma ci dara nag ci jàmm jàmm yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ko santaane yàlla moo ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun san bindu ma nit ak jinne lu doon ñu jaaw ma kon jaamu gi ma koy jaamu man Maodo jaakaaruma ci leneen lu jaamu ko ndax moo ko santaane lu mu def moo xam ne noonu la jàngale meeg jàng beeg julli geeg yooyu yëpp borom beeg moom ñu nga kon loo yaakaar mu ni sama cofeel ci rasulillahi daal laa xam ne fekkee am naa lu may yàgg ëllëg moom laa yaakaar ak màggal gi ma koy màggal muy leen muy fexe ba keree fi gàmm ba àdduna yëpp di ko mën a xam ndax topp nga ki mu dee leer ba ba nit di liir ba mu nekk ci biir mu nekk fi mu jaar ba ni mu nekkee yonente ba ni mu gàddaayee ba ni mu defee ay xareem ba ni mu faatoo ba ki nga mujjee sotti ndox ci bàmmeelam lépp Maodo nga toppal ñu ko kon wax ñu waa ji mooy kan mu ni huwa sirruna huwa nuuruna huwa majduna wa huwa almushaffau inda yowma alxisaami mu ni kii daal ñi gàmmool kii boo leen bëggee xam daal huwa sirruna mooy suñu secret waaye huwa nuurunaa moom mooy sunu leer ndax min nuurihi ko defal akwaan yàllaahu huwa majdunaa mooy sunu teddange moom sallallahu alayhi wa sallam waaye huwa al musafaau inda yowm alxisaami moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bis bu ñu dekkee ëllëg yowm alxiyaam ba yàlla war a régler jaam yi ku nekk di xuloog sa morom ci àq ñii daw di laqatu seen morom ngir àq nee na booba kenn dong lañ fa yaakaar moo ñu ràmm mi sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi wax ja loolu bëggee xamee nag kañ la judd ak naka la juddoo ak la xewoon ci juddu ko bàyyi ma indil leen ko ma mi leen gàmm ñu ko Maodo mu ni waa aamun summa shahrun summa yawmun ata fiihi mu ni waa at ma ak weer ak bis mu ni dikkee na jëmmug njub gi muy ki nga xamante moy gën ci nit ñi moy jëm jëm yi mo gën ci jëm yi mom la yàlla may lu mu maylu kenn mom la yàlla kawel lu kawelul kenn ñu ko la joxe won ci at yaag bis yoy mu ni sururun mbek la wa amun ci atma sururun fi sururin mbek la shahrun ci wer wa fi sururun mbek la it yow mun ci ci ca bis ba wer wi rasulullah sallallahu at bi sallallahu alayhi wa juddu dafay puukariwu ci yeneen at yi nga xamante ne judduwu ci leen daan man maa leen gën a tedd maa leen gën a màgg ndax ki judd ci man moo tax ci sam at lu judd ndax moom sallallahu alayhi wa sallam at mu judd muy puukaru ci yeneen at yi ndax at mu yëpp atum mbég la wa shahrun weer wa tamit di puukaru ci yeneen weer yi nga xamante ni judduwu ci mu naan leen man maa leen gën a tedd maa leen gën a màgg moo leen gën a mën a puukaru ndax ci sama weer ci la rasulullah juddu semaine ba di puukaru ci yeneen semaines yi waaye bis ba it di puukaru ci yeneen bis yi naan ci man la bisu sama bis la rasulullah juddu kon yéen maa leen gën a màgg maa leen gën a tedd kon bis bi sama bis bisu puukaru la wa mu ni feet la boo xamante ne duuna ayaadil uyuudi moo gën a kawe feet yi moom juddu sallallahu alayhi wa وعيد دون أعياد العيود جم لا جو خمتن مو غنا كاوي جم مي موم جم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيد دون أعياد العيون بركم اك مايام مو غنا كاوي مايو يينن يونتي صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم ني كون ات بان ات لا ويرو بان وير لا بان بيس لا ربيع مني ويرو لول لا موي ايفر bi ñu nekk wasana mu ni bis ba bisu altina fiihi shahirun bi aamil fii yawman ba'da nuuni mu ni ca at ma ba atum ñay wa passé ba am juróom fukki fan nee na mooy tombeek at moomam mooy atuk bi nga xam ci la yonent bi juddu weer wa mooy weeruk lolli di hiver bis ba mooy bisuk altina kon at ma di atum ñay sururun weer wa di weeruk lolli sururun bis ba di bisuk altine sururun, mom sallallahu Alaihi Wasallam. kon leppam am la way mawda mu nak wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun, fa fihi fa fii taazimu sujun kon jarna magal, de aka jarna magal mom bis bi rek wallahi mom rek jarna magal motax kula nan bis bi jarula magal ak dugg fi ak génn fi ak ne ko waaw rek dem di magal ndax bida bu rafet la te bida bu rafet day am taxaway sunna te lo ca def ci liiw yàlla fa yàlla fay lako xana nak wadifa di jéggalu yàlla astaghfir azma la ilaha illa huwal hayyul qayyum yàlla mënu julen ci yonte bi nga def salatu ala salatu fatiha def la ilaha illa allah ñu ne yonte mu ne amul kàddu gu nit di wax xet bu wax ak sama xet xet bu mo don bu gëna for la ilaha illa allah ah yii nag boo nee dafa xaraam moom xamoo lu dagan te yaa ngi fay julli faatoo waxtu nga pare yor say kurus di def say azkar def say dog di ñaan te yéen tamit ni adduwaaw silaaxul muslim ñaan mooy ñaan mooy gànnaayu jullit ñu pare tourné di waxtaanee kan mooy sallallahu alayhi wa ki tax ñu sàkkal te boo toogee bëgg ñuy waxtaan ñi lay waxtaanee sa maam سمام في دفون لي مو في دفون لي مو في دفون لي سمام رايون ديو دفني تواخني لسمام لو جن لني وخال رسول الله دا سمام لو امرك منك امتي يوم صلى الله عليه وسلم بدلو باخ نك لا واخ كون بيس بي جارنا ماغال جارنا باغا ييو باغا نلاو فناني خولي بسيت لب لوي فناني خولي بسيت غنول بيس بي فناني كو خولي بسيت مو تخ مولده به شرف وخير mu ni màggal juddug yént bi teddange la ak yiw da nga ci jëlee teddange da nga fa jëlee yiw da fa jëlee barke da nga fa jëlee leer da fa jëlee tiyaaba da nga fa jëlee ngërëmal Seydina Muhammad da nga fa jëlee ngërëmal yàlla ci boo ko defee nag ni moo Maodo waxee mooy ni ko mag ngi daan defee rek waxuma nag génération bi nañ ko defee xamuma ko waaye nag ni ko mag ngi daan defee dañu gis ko dañu participer gis ñi koy defee ci seen keppaar boko defé non am ci yow waaye yamu ci de mun fa fi ta'zim injaahi sujun mun gis nga bo magale juddi guddi rasul juddu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ni day fajuk aajo la mu ni aajo boo fa am yàlla faj ko mu ni màggal guddig rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da fay dàq corona maddu yàlla nako fi yàlla jaara jële fi corona bi ci barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam magal guddi yonnabi sallallahu alaihi wasallam aajo bépp boo amoon nga yéene ko ci guddi ga incha allahu yàlla dina ko faj balaa déwén màgg guddi ga rasulullah sallallahu yow mi may seetaan nga bëgg jëkkër boroom kër munoo ko am màggalal guddi yonent bi nga yéene ko ci yàlla may la ko balaa déwén yow mi may seetaan nga bëgg soxna bëgg màggal guddi rasulullah sallallahu alayhi nga yéene ko ci ñaan ko ci balaa déwén yàlla may la ci moo xam nga bëgg liggéey moo xam nga bëgg place moo xam moo xam moo xam lépp loo xamante ni bëgg nga ko te du mooy yàlla Maodo nee na in jaaxu sujooni mooy taazimu gudd màggal gudd yéen bi sallallahu alayhi man fi taazimu in jaaxu sujooni mu ni fajug aajo la fajug aajo lépp a ci kon ci gàmmu gi yal na fi yàlla jaare dàqal ñu coronavirus ci gàmmu gi yal na fi yàlla jaare daqal ñu lépp loo xamante ni bekkoor la bu naroo dal ci réewu jullit ñeek réew mi lépp loo xamante ni naqar la ak yiwadi la yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla musal ñu seytaane yàlla barkeel barkeel nawet bi barkeel it ñi ko doon bay barkeel it seenu marchandise ma ñuy jaay pour ñu koy dimbali ko ak lañ ci bëgg a jëriñoo lépp nag yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci barke weer gàmmu gi kon nag xamna naa dañuy fi seen émission ndax li ñu mayon ci waxtu jotna mu nekkon émission bo xamni ji waccayu gam la ndax olof day wax ni lu xew di waxu li ay di jàmbat dana lu way di wax di wax nak be ex ci wax bisu weeru yonent bi nga mëna bàyyi sax waxte ko fee ñe waxtaane kan moy sallallahu alayhi wasallam ndax comme li la ko waxe sank rek mom sayyid al hajj malik way ka ba dafa ni ko ku bëgg yeneen faw nga bëgg Maodo awkat bi ne ko tamit dëgg kon mun ta ñàkk ndax lan daf ñu waxal kan mooy rasulillahi waaye Cheikh Bamba it kenn du moom ndax moom mi am tur bu sell ñu tuddee ko yonent bi muy Ahmad di Muhammad mu teg ko fee daan ni xaadimu rasul ñun ñëpp ñu bàyyi seen lépp dëgmal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mag ñi lañu bàyyi lañu ñu amoon jàppoon ko bàyyi ko topp yonent bi topp sunnaam kon ñun tamit bu dee bëgg nañu rasulillahi nañu roy ci ñoom ndax ab sëriñ loolu rek lay jëriñ wa atiu llaha wa atiu rasul wa urul amri minkum urul amri minkum mooy sëriñ kon sëriñ ba ngay topp nanga ko toppee ngir roy sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu wax rek yàlla nañ yàlla may ñu fekk gàmm ngeeg jàmm fekk ay gàmm yu baree bare baree bëri bi barakati sallallahu alayhi wa sallam di delluwaat rek di nuyu eh, sunu kilifa yi surtout nuyu suñu waa garage yi nga xamante ni fi la ñuy daanee suñu doole mel ni ñoom Vieux Seydi ñoom Adjuma Ngom ñoom Matar Soudeur ñoom Mam Góor bu nga defee rek nuyu nañ ñëpp ñu yóbbaale ñëpp fa tabarakallahu di nuyu it euh, suñuy xaritu bopp ñi yàlla booleel ndax ku nekk am na kële yàlla booleel muy say soppe ñu suñu soppe yi nga xam ne ñu ngi nekk ci fondation Kër Rasoul ci yëpp nag ndax duñ ci suite benn di juum wala ñuy tëb ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Nabiye ñoom Modou Gueye ñoom Demba Signane waaye di beral nuyoo nag sama ustaasu bopp di ma koy waxee saa su nekk fu ma dem saa su nekk di ko ndamoo di ko sagoo di ko tiitaroo muy ustaas Babacar Jara di ko ñaanal bu Seydi Mouhamadil Mansour borom daara ji bu Serigne Babacar si bu Seydi Alhaaji Malick ustaas ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm sutura xéewal yàlla yàlla fëgg bopp bi ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla sàmm la di waaye jaar ci yow rek nuyu waa waa soppee borom daara ji ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp إن نرد إلى الإصلاح ما استطعتم وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته